waaw xam naa nag sëriñ Babacar radiallahu anhu bu delloo ci donn gi nga xam ni moom la donnu Cheikh El Hadj dafa doon loo xam ni mag ñi am basira ñépp gisoon nañu ko njëkk demu Mam Maodo ndax Cheikh El Hadj Malick anhu dafa xëy ni ko Babacar mu ni ko daal ñaari kuy duñu naanandoo ci mbalka mu ni ko te xam naa ni mag yow mënatuñu bokk benn barab mu ni ko kon nag Babacar mu ni ko dama bëggoon mu ni ko nga jël distance sëriñ Babacar ni ko ma dem ndar bokk mu ni ko dafa dafa sore mu ni ko ma dem Louga mu ni ko maga nga fa te bëgguma ñu lëndëmal seen diggante mu ni ko teem a dem dakaar mu ni ko dakaar sama liggéey noppeegu fa mu ni ko kon ma dem tëngéej boog mu ni ko tëngéej baax na mu ni ko léegi nag Babacar mu ni ko dangay toog tëngeej soo ma soxlaa nga bind ma su ma la soxlaa woo la bi muy dem tëngeej ji am góor gu ko Cheikh Al Hadj dénk radiyallahu anhu góor gi moo tuddoon qaadi Jibril Diagne radiyallahu taala muy ku yàlla mayoon ci wàllu fatxu ndax dafa fonkoon jaamu yàlla lool ba mag ñi waxoon nañ ni bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ànd ak sayid cheikh Ahmed Tijani ak uh, saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñu wax ni moom qaadi Jibril jaañ daan na bokk ci ñi nga xam ni daan na leen gis moom qaadi Jibril Diagne nag Serigne Babacar di sàmm wëllëre boobu ba balaa daan génn day ñëw wax ko qaadi Jibril Diagne mu ñaanal ko un jour nag sëriñ Babacar def loo xam ni miinuñu ko woon ci moom ndax bu ko mam Maodo woowul rek du ñëw Tiwaawan ba bés nag mu xëy moom sëriñ Babacar ni namm naa Cheikh Al Hadj mu ni kon nammel goo xam ni daal mënatuma ko muñ kon nag faw xëy dem Tiwaawan ziare ji ko bi mu ñëwee moom Serigne Babacar mu ni Qadi Jibril Diagne ah jub ko rek Qadi Jibril ne ko Babacar ndokkale mu ni ko man maa ngi ñëw di la tàggu pour dem ci yoon nga may ndokkeel lu xew noonu mu ni ko ci sa xilaafa gi te boobu Cheikh Al Hadj a ngi fi Serigne Babacar ni ko ban xilaafa mu ni ko mooy bërki démb ci guddi mu ni ko dafa am lu ma doon liggéey ci sama kurus mu ni ko ci wàllu yàlla mu ni ko ba gis Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu mu ni ko mi ngi toog ci mbalaanu wadifa mu ni ko waaye ci biir mbalaanu wadifa ba mu ni ko mu mu seppi ci fukki mag nee na ma ni ko góor gi ñi ngay génne nag nee na mu ni ko ñii dama leen a fas yéene jiital sax mu ni ko ndax chaise bii ma toogee nag Babacar moo fi war a toogee mu ni ko te fukki yi nag bu ma leen fi bàyyee xam naa ni dinañu ko sonal ci liggéeyam moo tax ma leen di jiital qaadi Jibril Jaañ ni Sëriñ Babacar moo tax ma xam ni fi sa baay toog yaa fiy toog waaye Serigne Babacar defu ci commentaire daf ni ko ñaanal ma rek ma dem Serigne Babacar bi mu ñëwee radiyallahu anhu Mame Maodo ni ko ab ah, Babacar danga ñëw mu ni ko ñëw naa kay mu ni ko mbaa jàmm ndax lii mës ta doon sa habitude mu ni ko ah góor gi namoon la rek ba mënatuma ko muñ mu ni ko kon nag dangay ngay fanaan Serigne Babacar fanaan xëy suba ñëw ni ko góor gi mu ni ko ñaanal ma ma dem. cheikh alxaaji malik ni ko fanaanaatal mu fanaan ba ci ñetteelu fan bi maam Maodo ne ko Babacar di nga fanaanaat de bi fanaanee mu xëy ni ko ah, tey de moom dinaa la yewwi mu ni ko moo ma gënaloon de ndax benn mbubb laa fi indi mu ni ko nag li tax ma téye woon la fi Babacar mu ni ko maa la soxlaa ñetti yëf mu ni ko bu njëkk bi mu ni ko mooy fii ma toog mu ni ko seen borom mu ni ko wax nañu ni sama ginnaaw mu ni ko yow yaa leen fi doy mu ni ko ay Babacar nag mu ni ko dama ci sant yàlla mu ni ko ndax dama la ko yéene woon lool mu ni ko waaye li ma la yéene yéene yéene mu ni ko bu seen borom désigné woon keneen mu ni ko duma ci mën dara muniko ay limay sante yàlla nak muniko moy li wolof di wax muniko joxagn ko daje naag gerstu muniko ay xamon nani nak ak ni nga mel ci yar ma sha allah muniko li manu la won moy te fek bobu mag ñépp daje ci ala durratil bayda ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci kanamu sayyid cheikh ahmed tishani ash-sharif al-fatimi radiyallahu anhu ñu wax ni cheikh al alxaj malik nak da fay dem kon ndono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndono tariqa bi il faut que nañu xol ci yan lox lañu koy tek cheikh al alxaaj omar al futi radiyallahu taala anhu mo ñeek juk taxaw ni man proposer na serigne babakar si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni nañu ko évaluer ba xam critère yépp daje na ci mom wala dajewu ci waye biñu ko évaluer nak serigne cheikh ne nako fa wallahu ashya al ukhuwati kullaha وأعطاهم مفتاحا قبيل انتقاله فقال له أنت الذي اجتمعت له وصايا التشاني والرسول وآله سرين شاه مونيكو بينكو ايفالوي مونيكو ماتير بوني لجل جيل يو سرين بابكر مونيكو فاينغا تي مونيكو موتاخناك مونيكو باساسيون دي سيرفيس مونيكو تي ادمنستراسيون مينو نانيوكو مونيكو اي باساسيون دي سيرفيس ناك مونيكو بو سبيريتوييل mu ni ko moo am sa diggante mu ni ko ak Cheikh Alxaaji Malik mu ni ko mu jox la les accessoires mystiques waaye mu jox la it les codes mystiques wa bidalika wa lidalika wa bidaka qaala lahu alimaamu muakkidan أودعت سر قيادة محمولة وورثت مني ما يعود مسجلا لرواية ودراية تسجيلا لولا كو شيخ الحاج مالك واخ بيم كوكو واخي يت سيرن بابكر نيكو اه mën naa la ko nangul de mën naa leen ko nangul waaye daf ko conditionné ni ko ci kaw kenn bañ ma xam ba mu jóge fi waaye nag euh, loolu damay wax ni dafa am lu mu ci waxoon Cheikh Al Hadj loo xam ni daf ko dal moom Serigne Babacar ndax dafa waxoon ni bu ko kenn xam feeg jógewu fi waaye dafa toog ak Cheikh Al Hadj Malick ca Ndar moom Serigne Babacar biñ toogee euh, mbooloo yi di ñëw koo gis muy daanu xaal ci Cheikh Al Hadj sëñ Babacar tok ba ci yàgg ni ko góor gi mu ni ko waaw mu ko nit ñangi ngi bëgg bari de mu ko Babacar mu ni ko mbaa du dangaa jàpp ni dama lal kurus pour nit ñi ñëw mu ko Babacar mu ni ko billaahi mësuma liggéey ci sama kurus mukk mu ni ko lu may nit ñi mu ko ay dafa tollok ni nak mu ko cin loko tëj tëj tëj mu ni ko am na foo bu fa yegge mu ko faw xet gi génn ay serigne Babacar nak chartante won nak mam mawdoni bu ko ken xam waye liko alhaji Cheikh Gassama waxon rek lam ko waxoon ni ko sa nëbb gi si daa taxul ah, sa weer wu mat wi réer ci niir waaw ah, ku gëmm sax dajeeg salaire gi yàlla tas ci bépp gox bi loolu amee Cheikh Al Hadj ne ko mooy bu njëkk bi fas yéene naa la fee teg mu ni ko bu ñaareel bi it mu ni ko zawiya ba ca ndar mu ni ko sa alal la mu ni ko te it nit du bàyyi alalam mu ni ko kon nag dama bëggoon nga dem yaatal ko nga defar ko mu ni ko boo ko defaree ba noppi man tam maa ngi fiy liggéey ñaari téere mu di kifaayatu raghibin ak ifhaamu munkiril jaani mu ni ko bu yooyu yëpp pare nag Babacar sa zawiya pare samay téere pare mu ni ko ngeen utal ma yóbbal nag ma dem bàyyi leen ak seen àdduna mu ni ko kon nag nga dem ndar ànd ak Seydou Nourou Tall sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu nee na keroog bi zawiya bi pare bañ jox ma caabi yi nee na ca guddi ga nee na benn naar ñëw bu dëkkoon ca ndar ni ko Babacar dama ziyaare ji woon Cheikh Al Hadj tey de nee na ma wax la ni ay téeram pare na yow fu sa zaw ya toll Serigne Babacar nee na bi mu ma ko waxee nee na sama fit dafa rëcc nee ndax ma xam ni Cheikh Al Hadj Malick mi ngi ci waajtaay nee na ca suba ga di bésu talaata nee na Serigne Moussa Niang bind ko télégramme ni ko góor gi nee na nga ñëw kat ndax yaramam dafa tàng sëriñ Babacar jël saxaar ñëw bi mu ñëwee Cheikh Al Hadj ni ko Babacar dama foogoon ni dangay ngay bàyyi ba alxamis mu ni ko góor gi man su ma déggee sa kàddu mu ni ko amatuma benn soxla mu ni ko mën nag Babacar dara daluma mu ni ko ay dama toog rek yëg ni sama yaram dafa tayal mu wax ko loolu mardi mardi 27 juin 1922 mardi ba dellu si cheikh alxaaji malik wuy ji boromam waaye la ko sëriñ xabib si rakkam bu cheikh alxaaji malik sëriñ xabib si radiallahu waxoon sëriñ babacar ne ko nil na tasalsula baadahu wa taxayuran waaye fa chafaytana bilxaq mu ni ko ginnaaw cheikh alxaaji malik mu ni ko ñun ñëpp jaaxle woon nañ di laaj fu ñu jëm ak di laaj cheikh alxaaji malik est-ce que am na ku ko mën a donn mu ni ko waaye jaaxle googu ñu amoon ak tiitaange googu mu ni ko yaa ko saafara ci ñun mu ko ndax wane nga ni mate nga cheikh alxaaj malik mu ko ba ginnawam mu ko tax luñ nam ci cheikh alxaaj malik buñ ko xolé ci yow gis ko waaw tax ci janum nu bab nga déggon ci dinar waye sédel ko mom serigne babakar la in halaka alxaaju almumajjadu malik wa sar dafinan innahu ghayru haliki gada taarikan man kaana fi lmajdi mithlahu وما مات ميت تارك مثل مالكي تجان ابن باب نينا يومين الشيخ الحاج مالك دمنا مني خينا سخم خما غات نينا واي كوي دم باي في سبب نينا دمولو نينا دمنا باي في سرين بابكر مني تي سرين بابكر مانكي ووكو نون لان دونو مكني دونو طريقه بي دونو الشيخ الحاج مالك تي سيركونستانس بوبو لا دوغي تي لوخو ما شاء الله كون داك نيو جيخلي 4 بارتي بي maanaam euh, dimension dimension spirituelle bu bu Serigne Babacar pour nga dimension spirituelle bu Serigne Babacar moy nit lu mu am mu xam la ko may farata ndax Serigne Habib si doomu Cheikh Al Hadj la moy tiatam moo ñu Serigne Babacar si fan sa dimension spirituelle. ndax sëriñ Habib dafay wax ni nee na bari na nitu yàlla yoo xam ni mu ni lu ñu am ci yàlla mu ni kurusa leen ko may mu ni sëriñ Babacar nag radiyallahu anhu mu ni li mu am ci yàlla yépp mu ni sell ak sellal moo ko ko may ndax sëriñ Cheikh radiyallahu moo ko waxoon ni ko xulwun bi kulli lisaanin dhikru shimatihi wa tayyibun bi lisaani dikru chimaati sëriñ Cheikh dafa wax sëriñ Babacar radiallahu anhu mu ni ko bu ñuy nettali say jikko mu ni ko ni muy neexe ci ñun mu ni ko bu ñu tegaloon mbooleem ñam yi ci àdduna bi it mënuñoo jox bànneex bu toll noonu mu ni ko ndax yow sëriñ Babacar mu ni ko bu ñuy nettali sa jaar-jaar mu ni ko dañu koy nettali mu ni ko ak fierté mu ni ko fierté mu ni ko weesuwul mu ni ko am sa kilifa mu ko mu dund ci jamono boo xam ni zahara alfasaadu fi lbarri walbahri mu ni ko jamono boo xam ni mu ni ko lëndëm na mu ko lënd na mu ko waaye yow sëriñ babakan nga dund ci ba noppi te laqiya zamaane walam yafuh bi uyubihi mu ko te yow sëriñ babacar mu ko jamono mu ni ko mënulaa tuddal benn ayib mu ko loolu fierté la te dañuy wax ni maalil xalifati Serigne Cheikh moo ko wax mithlun fi tasarrufihi wa fi tasarrufihi sirru wilayati dafa mel daf ko donnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xam nga yonent dañuy daan def ay mucjisa waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam borom bi subhanahu wa taala ni ko yow doo def mucjisa ne ko yow sa mucjisa mooy jikko bu rafet sa mucjisa mooy alquran waaye nitu yàlla it dañuy faral di def tasarrufaat waye Serigne Cheikh neena Serigne Babacar bo beugé xam lan moy tasarrufatam neena da ngay xol jikko bu yiw jikko bu sel jikko bu tedd neena moy tasarrufatu Serigne Babacar wa aliftuhu was salihatu ghinauhu wa raaytuhu yashfi bi daka alila nga xam ni jikko bu sel bobu moko may dimension spirituelle bi mo am nga xam ni meun nañ ci jël quelques exemples exemple bu njëkk bi dafa am benn nit bu ñëw bi mu ñëwee wax sëriñ Babacar si radiyallahu anhu ndax nit ki dafa daan def heure bu fayeekuwaan fin du day jël saleeram am am lum ci indil sëriñ Babacar hëddiya ba bés muy ñëw Tiwaawan di indil sëriñ Babacar hëddiya bi romb gis ñuy jouer PMU mu ni kat kon dinaa dem jouer ci PMU bi ba xam bi mu jouer yàlla dogal mu gañe bi mu gañee mu jël xaalisu salaire bi jël xaalisu permis bi boole ci ni su ma demee jox ko sëriñ Serigne Babacar hëddiya mu gën a bari mais bi mu ko joxee Serigne Babacar mu gis Serigne Babacar si radiyallahu anhu def lu yéeme yéeme mooy dafa téye xaalis bi di ko départager di def nii di def nii bi mu defee nii waa ji jaxli ci góor gi li muy def lan la biñ paree Serigne Babacar ni ko ah bii Babacar sañ na koo lekk ndax moo jóge ci salaire bi bu dee bii nag Babacar sañu koo lal ndax du lal xaalisu péew mi keroog góor gi dafa yuux ni sëriñ Babacar gën ngaa dëgëral sama yaakaar ci yow sëñ Babacar ni ko barke Cheikh Al Hadj Malick rek beneen bi nga xam ni mën nañ ko ci jël comme misaal dafa am benn koo xam ni macha allah waajuram bu jigéen bokkul ci tariqa bi waaye nag doomam bokk ci tariqa bi sopp sëriñ Babacar si lool. njaboot bi war a ñëw ziar si sëñ Babacar radiyallahu anhu mu jël juróomi dërëm ca jamono boobu jox ko sëriñ Babacar si radiyallahu anhu jox ko doom ji ne ko boo demee joxal ma ko sëriñ Babacar njaboot bi nee na bi ñu ziaree nee na bañ ñaan rek des ci nee na man fàtte woon naa juróomi dërëm yi nee na sëriñ Babacar ñaan ba noppi nee na ñëpp toggaat nee na bi ñu toogaatee mu ni ku fi amoon sa wéyjur bu jigéen mu jox la juróomi dërëm ne la boo demee joxal ma ko sëriñ Babacar boo demee nag ma ko santal gërëmal ma ko te waxal ma ko ni sëriñ Babacar nee na du jël xaalisu kuy jëfandikoo poon bu ñetteel bi nga xam ni mën nañ ko ci jël comme exemple maa ngi ko déggee ci oustaz Fatah Sarr ndax it dafa bokk ci honnêteté intellectuelle booy wax nga indi référence oustaz Fatah nee na sëriñ Mor Diop bu parcelle moo ko nettali. neena wax ko ni ko jamono bi nga xamee ni ñu ngi liggéey kër Serigne Babacar gee ñu tuddee kaw lax nga xam ni fa la soxna astuka nekkoon mu ni dafa ñëw moom sëriñ Mor jóob nee ànd ak benn waay ju tudd Saliou jóob nee na ñu ni dañuy dem ci liggéeyu sëriñ Babacar bi nee na bi muy génn moom Saliou Diop nee na soxnaam dab ko ni ko tee nga xool rek loo ma mën a jox ndax dafa mel ni tey kër gi dara nekku fi nee na Saliou Diop ni ko ah bu yeboo nga lijjanti ba ma ñëw de ndax juróom benn fukk rek laa fi yor te dama fas ne nag paasee ko ngir dem participer ci liggéeyu Serigne Babacar Serigne Mor Diop nee na Serigne Babacar si radiyallahu anhu nee na keroog bu ñuy waxtaan ba ba ñuy ñaan nee na mu ni ñu may ma rek ma am point boo xam ne dinaa ci insister bu kenn war a ñëwati sama liggéey sa njaboot laaj la. nga ne ko juróom benn fukk yi ma yor dama ko yóbbu ci liggéeyu Serigne Babacar bi ndax Serigne Babacar tegul kenn lu mënul te nit nag njabootam mooy priorité bu ñeenteel bi nga xam ni mën nañ ko ci jël comme exemple dañ koy bayal toolam moom Serigne Babacar si radiyallahu anhu mooy toolu jàmm gënam yi biñ koy bayal ñu dem ba ngoon jot bi ñuy ñaan moom sëriñ Babacar mu ni ah sama ñaan gi nag lu ci way ñaan te nanguwul mu ni may naa la nga ñëw nga poñe ma am benn ku fa nekkoon wax ni daal sama doomu tànt bi may bëgg te heure bu demee mu jafe su ma demee te yàlla ma yàlla mottalil ma ko mu dogal loolu ci ñaan gi moom nit ka dem bi mu demee seetiwaat doomu tante bi mel ni mbir mi dafa gën a jafe mu ni lii nag duma ko bàyyi nii dinaa dem ci Serigne Babacar si ma wax ko ko ndax moo waxoon lu waay ñaan dugal ci ñaan gi te nanguwul mu poñe ko te it daal li ma ñaanoon gisuma ci gisuma ci résultat